di nuyu njabootu maam borom Touba gi ñu fekk ci barab bi yëpp ku ci nekk ñu ngi lay nuyu di la ziyaara bu baax a baax a baax maa ngi lay nuyu ci sama tur ak turu délégation bi ma àndal yëpp te Alaaji Moodu Mbaay lim leen léegi ñii bàyyeekoo ci kër gi ñuy wax ONAS mooy fa ñu ne ñii bàyyeekoo ci sama njabootu politik gi may àndal di yëngatu di jàppale son excellence le président de la république euh, Macky Sall ñi ngi amaat mbégte sëriñ bi ñëwaat ci place bi ba noppi nag fekkaat la fi ñi ngi ñaan yàlla yàlla na yàgg ndax nag du guleet suñu ñëw fii tey ci kër gi nga tar nga teral ñu fi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 barkee fi wàcc ay millions ngi doomu aadama yoo xam ne kenn xamul li fu toll di fi di fi wàcc di fi def ay fan dëkk boobu war nañoo fexe ba bu ñu ñëwee ñu nekk ci condition yu baax en tout cas ñun ONAS ci ndigal yi ngi ñu jox mooy fexe ba condition yooyu baax te ci la ñuy liggéey guddi ci la ñuy liggéey bëccëg matale lépp nag yombul sëriñ bi waaye ñu ngi ciy jéem ci suñu yéene ak suñu xam-xam ak suñu man-man waaye li ñu am yaakaar daal mooy itam ñu mën koo wax mooy bu projet bi jeexee incha allah am na barab yu bari yoo xam ni ñu doon am ndox am nañ yaakaar dana wàññeeku foofu waaye nag du tax mu jeex ndax Touba mooy dëkk bu ñu toll di dëkk buy màgg di dëkk buy yaatu donc faw toujours projet yi ñu koy continuer di ko dolli di ko dolli di ko dolli ndax dëkk bi mooy màgge noonu loolu ci gàttal laa bëggoon a wax sëriñ bi ci fi ñu toll ci wàllu liggéey bi di la talal suñu ay loxo ni ñu ko daan defee démb ak barki démb nga ñaanal ñu yàlla kàttanal ñu ba yéene yooyu ñu am yàlla suñu borom dimbali ñu ba ñu yeggali ko ak jàmm ah contexte bi ñu ñëw nag ku ne xam na ni contexte su nangu ñaan la ndax ñi ngi ñëw ci fani màggal bu ne xam na sëñ bi lim waxoon ci bis boobu loolu moo tax ñu bàyyi suñu yitte yëpp ñëw fi ci turu directeur général ONAS waaye ñëw fi itam ci en tant que doom doomu kër gi en tant que doomu dëkk bi en tant que doomu sëñ Muntaxa ngir ngir barke boobu di fi wàcc fan yi yàlla suñu borom mën koo sëmbatal ci suñu jëmm waaye sëmbatal ko ci délégation bi nga xam ne yëpp moom la ñu àndal kon ñi ngi tàllaat suñu loxo nga ñaanal délégation bi ma àndal ñoom ñëpp yàlla defal leen tawféex defal leen jàmm te ñu màggal ci jàmm delluwaat ci jàmm asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. nee mi ngi leen di delloom nuyoo bu baax. di ko teg ci directeur général ONAS. di Mamadou Mamour Diallo ak mbooleem ñi nga àndal ñépp ci liggéey bi ne dégg na kàddu yi bu baax ne li ci ëppit nag ci kàddu yi leeral nga ko waaye li ci am solo rek li ma leeral léegi man mii ni sëriñ bi wax nag ko ne loolu doyoon na sëkk ne bu la xisee ba Seex mun taxaa seere rek ne kenn mun a wax kàddu yu këpp xanaa jotti liwaat lak cant ak ngërëm ci sa taxawaay ndax nit kat bu jëfee Cheikh Abdoulaye daf daa wax ni man duma gërëm ku ma defalul dara waaye nag buñ la joxee liggéey bi ne Mamour da nga cee wane pësteef bu rëy rëy wane ci yitte ju rëy wane ci dogu wane ci bëgg ndam ne loolu nag yëg nañ ko bu baax ñee ñëw nga fi yoon boo xam ne bii moom mi sax yëgaloo ko ko ay yooni yoon nag yaa ñëw xoolal sa bopp ci liggéey bi ne li ci am gàllankoor it nga doxal ko sa bopp ne loolu nag itte la ne loolu nag béttuñu ci yow nag ndax ba ñuy xam Mamour yàgg na waaye li xamoon ci yow rek ne moo ne ci yow xam nañ sëb xol bu yaatu xam nañ sa yéene ju rafet waaye xam nañ sa fonk sëriñ Touba te liggéey bi ñuy def Touba nag da nga koo def sa mbirum bopp moo tax nga taxaw ci taxawaay bii nga taxaw ne ndox mi moom li mu nangu ci dëkk bi daa bari waaye def nga ciy jéego ba woyofal na ko. ne yoonu Mbàkke wi ci amoon jafe-jafe mooy fi ñu daggoon fan yi fan yi weesu rek bu tawee diggante fi Mbàkke mën nga koo dox lépp waxtu wala booy dem te roeg si waaye bi pompe yi baaxee bi pomp yi baaxee ku yegsi rek jàll loolu na yitte ju la ndax pomp boobu nga fi indi ñett defe na yaakaar ñaar la wala ñett rek Sénégal ñett wala ñeent rek bëriw fi daal ñu indi fi kon ñaar Touba loolu yëpp ngir woyofal métti su nit ñi kon ñu ngi lay sant bu baax di la xamal ni sëñ bi kat nee gis na yitte ji nga ci def léegi-léegi saa su rombee barab gis ca liggéey ba dara du ko du ko jaaxal du du jaaxle lu ko jaaxal ne bu la wooyee fa saase nga def ci yitte fexe ba la ko loolee ko jaaxal saafarawu ne fan yi am de bis mu am lu mu la ciy wax nga wax ko ci lu xoromu loolu mooy kat ndakke saafara su jur jàngoro ne loolu nag waaye fa saase rek nga def ci taxawaay yitte ba loolu saafarawu kon ñu ngi lay santaat bu baax ndax gis nañu yitte ji nga ko def ndax yeggoon nga ci wax ko ni ko ñetti projet yi bu sottee ca may loxo rek sama mission mat na benn bi Touba la loolu lépp yëg la te xam nañu lu dëggula la ci yow kon ñu ngi yemale foofu kàddu yi ñaan yàlla lépp yegg ak jàmm ngeen am ci ndam jërëjëf. شهر وفي سفر حماني على ماه مع الحبس والسفر فلاهي بكوني عبد ربي خديمه عجيب به لي جاد مغن عن النفر رديت عن المولى وعن خير خلقه